Abdoulaye Loum ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen fay ci invitation bi. yow yaay président association sénégalaise yuy dund ak jàngoro ji ñu naan hémophilie at bu yàlla sàkk fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril. àdduna wërngal këpp day màggal bëccëg bi nga xam ni itam euh, mooy li nga xam ni moo jëm ci hémophilie jàngoro la ji nga xam ni njëriñ la mooy sensibiliser euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo di askan wi pàcc gu gën a am solo euh, jàngoro ja loo nga xam ni askan wi ñu ci bari xamuñu ko loo waral li ni mel yow yaay président association sénégalaise ñi dund ak hémophilie bi ni mel déjà est-ce que mënoon nañ xam jàngoro ji naka la la dikkee yow ak tey jafe-jafe yi nga xam ni itam moom ngeen di dundee ak jàngoro bi. waaw feebar bi ni nga ko waxee feebaru wayum deret la maanaam tey ki nga xamante ne dafa am hémophilie bu daggee wala mu am nàcc boo xamante ne ci biir yaramam lay nekk nàcc nàcc bi du gaaw a arrêté parce que tey li li nga xamante ne am na ay ay éléments yoo xamante ne dafay bokk ci li wayal deret bi. moom moomu la amul loolu mu la ñuy wax concentré de facteurs yi euh, maanaam huit neuf ak sept léegi nag feebar bi moom dang koy feebaru feebaru noonu la da nga koy da koy da koy da koy doon ci say ci say parents tey boo xoolee feebar bi essentiellement yaay ji koy jox doom ci mais boo ko gëstoo ba ci bi da ngay gis ne yaay ji ci papam la ko jëlee li ci ëpp aussi tey jigéen mën na am euh, gène bi waaye du feeñ ci moom mais ci góor lay gën a feeñ. ah góor ñi ñoo ci euh, gën a bëri. waaw waaw ci góor lay mën nañ jàpp sax ne ci góor lay feeñ. Mhm. waaw ba fi may wax ak ni mën nañ mën nañ jàpp loolu. Mhm. Euh, léegi dundin bi dèjà naka ngeen koy dundee ak jàngoro bi yéen ñi ko am dèjà. waaw dafa métti dafa métti parce que tey feebar boo xamante ne dalay dalay tere yow. yu bari yoo xamante ne man bu doon eh, amoo ko mën nga ko def da ngay obligé da nga koy bàyyi ci mel ne tey yi nga xamante ne mooy football ak dawal vélo lépp loo xamante ne tey dafay andi jaxasoo ak keneen dañ la koy tere parce que boo gaañoo li tubaab naan hémorragie interne mën nga am nàcc nàcc boo xam ne sa biir yaram lay nekk moo taxit tey ñi nga xamante ne xaw nañu am tuuti mag eh, nañ tuuti ñooñu ñu ngi mën di dafay difficile mais surtout xale yi nga xamante ne kenn mënul leen na contrôler ñoom dafay daal di jafe pour que nga xamante ne nga surveiller leen moo tax tout temps dañuy amee ay ay ay euh, ay nàcc nàcc day obligé di yenu di yóbbu hôpital dundin bi noonu métti na trop. Euh, euh, boo ñu ko doon expliquer mooy nàcc nàcc la ba nga xam ni bu commencé sottiku du taxaw. du taxaw maanaam tey boo bu fekkoon ne yow amoo feebal boo daggee. wala nga gaañu nga am nàcc nàcc bu nekk sa biir yaram ay simili nga ci teg rek nàcc nàcc bi arrêté mais ki nga xamante ne dafa am feebar bi bu commencé nàcc nàcc bi day continuer parce que am na loo xamante ne tey bokk na ci liy tax deret bi way maanaam nàcc nàcc bi arrêté ki amee hémophilie moom yooyu moo nekkul ci yaram moo tax muy nàcc dafay continuer di nàcc rek mu nekk lu doy waar ah Abdoulaye Loum yaay président association sénégalaise ñiy dund ak li nga xam ne moo jëm ci jàngoroy hémophilie sànq dégg na la ci biir wax ci waxtaan wi nga ne euh, nit ki dina feebar sax dem doxantu pharmacie mën a am médicament mais yéen médicament dafa tumranke si yéen lu tax loolu fi ah, may wax yow ni garab yi kenn du ko kenn du ko Sénégal ñun li tax ñu koy am mooy Euh, fédération mondiale bi nga xamante ne association bi fa la bokk moom moo ñu koy may mais du garab boo xamante ne tey boo ko bëggoon jënd li nga mën a dugg pharmacie nga jënd ko wala lu demee noonu non seulement cher na cher boo xamante ne dafa jéggi dayo waaye garab boo xamante ne dañ koy jaay fii Sénégal. waaw foofu dañ fay taxawandi loolu jafe-jafe la de ndaxte euh, ci médicament yooyu ne. problème la ndax disponibilité bi comme ni nga ko waxee fédération mondiale hémophilie moo leen koy jox sous forme de don waa léegi bu mhm. fédération bi téye nag ay loxoom. bu garab moo lul amati rek garab moo dul amati bu ko defee ñi nga xamante ne ñoom ñoo amee feebar bi tey bu ñu amee ay naaj naaj nañ am ay jafe-jafe yooyu pour mën a am seen traitement wala sax arrêté naaj naaj. donc loolu mooy conséquence yi te xam nga nàcc nàcc moom buy dem te mënoo ko arrêté mën nga cee ñàkk sa bakkan donc boo koy xoolee bu traitement amatul tagu nàcc nàcc li continuer mën nañ ci ñàkk seen bakkan kon donc su ma la comprendre bu baax lu ñu war a saafara la euh, ndaxte mun euh, mënta xaar mënta xaar mënta xaar tey euh, booy xoolee ci atum wala 2017 sax garab bi dugal nañ ko ci liste médicament d'urgence yi maanaam donc moo lay wan ne garab bi la lu war a am la mais boobu ba léegi ñun amuñu loo xamante ne ne ah garab baa ngi nii disponible na mettre nañ ko à disposition yi nga xamante ne ñoo amal feebar bi bu ñu demee ci hôpital bu ñu mënti dem nañ ko fa fekk wala ni di mel donc loo xamante ne tey boo ko jëlee mooy tax naaj ci naaj bi arrêté te xam nañ ne nit booy naaj mën nga cee ñàkk sa bakkan bu loolu amul moom loo xamante ne dañ koo war a saafara ci saa si la parce que mooy permettre nit ki continuer dundam ni mu waree. léegi bëggoon nañ xam nombre de cas bi nga xam ne tey am na fii ci diwaanu Sénégal te ñu médecin yi daal di koy diagnostiqué lim bi lu mu toll ci fu mu toll. waaw xaw ma nag nu ma koy waxee ci wala waaye mën na ne ëpp na quatre cent d'accord ëpp ëpp na quatre cent waaw. te tey tey booy xoolee ñu ngi war a am ci ci yoon lu ko tolloog mille huit cent donc xam nga mille huit cent ak quatre cent gab bi moom donc rëy na rëy boo xamante ne euh, di jéggi mhm. léegi ci prise en charge bi euh, parce que li fi junj nii yëpp kon mel na ni prise en charge bi moom lu metti la. des na lu bari des na lu bari parce que boo koy xool population bi ñu ci bari xamuñu ko waaye côté médical aussi desandi ko xam surtout bu ñu amee hémophile boo xamante ne ñëw na ci ñoom naka lañ koy mën a gérer loolu tamit lu loo xamante ni lu ñu war a taxaw la te association bi ak ak CNTS ak yooyu ñu ci def ay jéego yu yu am solo. ci geneen wàll gi am na beneen problème bi nga xam ni tey déjà mi ngi fi. Euh, mooy disponibilité ci yeneen région yi daanaka itam mhm. boobu itam beneen beneen cas la Abdoulaye Loum waaw nga garab gi moom daanaka bu bu amul moom fépp la dul am bu amul fépp la garab yi ñuy jot tey nga xamante ne ay doole bu ñëwee fii ci Dakar ba ñu conservé ko au niveau centre national transfusion sanguine dañu am ay jafe-jafe yu métti pour mën ko yóbbu ci région yi parce que circuit bi ñuy utiliser ñun pour yóbbu ko dafay nekk loo xamante ne par occasion lay doon rek heureusement tey waa CNTS ñu ñu ciy jàppale bu baax te aussi ñu ngi def sensibilisation depuis at mi ak waa division lutte contre la maladie pour mën a wax ci loolu xool naka lañ koy saafara mais ba fi may wax ak yow nii mhm. garab yi dañ ñu koy may bu ñëwee fii ñu ñooy déglu yow xool naka lañ koy dugalee ci biir région bi mais heureusement waa centre bi CNTS ci bu baax mais des fois dafay jafe trop. thème bi li nga xam ni fent nañ ko atum ren ji mooy euh, accès équitable ci li jëm ci wàllum trouble euh, coagulation euh, déjà lan nga ñu mën a wax yow ci thématique bi nga xam ni itam daal nañ koy rëdd atum ren ji. thématique bi tey boo ko gisee lu lu ko sookee mooy. à part hémophilie am na yeneen trouble yoo xamante ni de la coagulation am na fi boo jëlee vilpante mu ngi boo jëlee beneen ak beneen te ñooñu ñëpp jafe-jafe bi hémophilie bi dund moom la ñuy dund moo tax na tey ñu taamu thème bi nga xamante ne ci biir waxtaan beeg ci biir euh, plaidoyer bi ñu war a waxtaan ak nañ ci mën a boole ñëpp bu ko defee bu ñuy saafara fexe saafara ñëpp bu ko defee ñëpp mën a nekk ci jàmm Abdoulaye Loum yow yaay euh, président euh, association sénégalaise yu am jàngoro yi li nga xam ni moo jëm ci hémophilie alors ci jamono googee nag li nga xam ni itam moo di gouvernement bi nga xam ni itam génn na ci ayu président de la république ñàkkul ni ay jéego def nañ ko ci fànn wi ni mel de. waaw boo xoolee tey euh, ak ñoom la la la garab bi dugg ci liste médicament d'urgence li wane ni garab bi tey loo xamante ne bokk na ci garab yi nga xamante ne ay priorité la léegi nag li des mooy ñu ñu jëmbal ko jënd garab bi mu disponible ah, ñu am soit bu dee dañ ñuy jox li nga xamante ne dañ koy jënd mu mën a disponible hémophilie mën ci jot ci ni mu gën a ni mu a yombee mën nañ soy may sax bu ko defee ñu mën a mën a faju ci yoon donc ci gouvernement bu bees bi ñu profité lancé leen appel rek pour que ñu gëstuwaat dossier bi mhm. boo xamante ne boobu ba léegi ñu ngi ci daw di wax bu ko defee ñu mën ñu ko saafaraal au moins ñu mën a jàll ci beneen beneen étape. waaw kon ñoom xam nañ euh, dossier bi fu mu toll te tey farlu bi mooy ñu gën ci gaaw. waaw ñu ñu gën ci gaaw gën ko gëstu parce que amoon na ay gëstu yu bari yoo xamante ne defoon nañ ci comme ni ko tàmm di waxee gannaaw état continuité la moom yaakaar naa ne bu ñëwee dañ fa fekk loolu yëpp bu ñu ñu mën ci jublu rek ñu mën a am mbir mi euh, saafara wala mu gën a gaawee. Euh, ñàkkul nii jëwriñ gi ñu dénk wàllum pàcc dina déglu li ni mel professeur Ibrahima si mooy euh, moom lañu dénk wàllum paj mi kon su ma la déggee daal mooy euh, Abdoulaye il faut que ñu insister ci li nga xam ni moo jëm ci sensibilisation ndax jàngoro ji nga xam ni askan wi ñu ci bari xamuñu ko kon faaw ñu soññ ñi nga xam ni itam ñoo di askan wi. waaw tey bu ko askan bi xamul. nit ñi man nañ fa jaaree di nga xamante ne mooy ñàkk seen bakkan gannaaw naaj naaj la rek mais askan bi aussi dañ ci boole ñi nga xamante ne gannaaw bokk nañ ci sax ba pare waaye ñu wax leen ko rek nga xamante ne ñoo yor wàllu faj mi parce que ñoom aussi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom war nañ leen gën a sensibiliser ba hémophile tey bu ñëwee taxaw seen kanam wala comme trouble de la coagulation mu mën a xam naka la koy mën a gérer ba affaire yi jaar ni mu war a jaare waaw di fàttali ni tey ci mardi bi itam célébration euh, journée bi di ngeen ko amal fële nga xam ni itam moom moo di jë CNTS euh, foofu euh, ngeen nar a mm-hmm. amalee xew-xew bi. waaw célébration bi comme chaque année le 17 avril dañ koy célébrer ci àdduna bi yëpp waaye fii Sénégal moom dinañ ko defee Dakar dinañ ko defee Thiès dinañ ko defee Kaolack. Louga Saint-Louis ak ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni nangoo tontu suñuy laaj Abdoulaye Loum. ñun ñoo leen di sant ci mën ci wax bu ko defee ñëpp di fàttali ni yow yaay président association sénégalaise ñii nga xam ne ñoom ñooy dund ak jàngoro yi hémophilie. jàngoro yi hémophilie.